ay photo yu nga xam ne mi ngi commencé ci euh, réseau yu ñu koy partagé jëm ci euh, Karim Meïssa Wade donc dafa mel ni dafa commencé li nga xam ne moo di euh, campagne digitale bi yaa ah. wala donc noonu lañ ko mën a duppee soxna Ndeye Astou tu as mm-hmm. bien fait de l'appeler campagne digitale sa wolof mm-hmm. sa waaja Karim Meïssa Wade mm-hmm. doom ci Abdoulaye Wade ma ca Qatar te wa ñibbisi mel na ni à deux mois de la présidentielle gis nañ démb am loo xamante ni na fees na dell ci réseau sociaux yi mu di maanaam ay naataalam. Mm-hmm. luñ ñu xamal mooy que ni ab campagne digitale woo xam ne moo ko jiitee ànd ko ak ay jegeñaaleem mboolem réseaux sociaux yi soxna Ndeye Assou amul mm-hmm. benn bi nga xamante ni nag may Meïssa Wade bàyyi na ko ngir mën a fësal jëmmam waaye ngir mën a fësal la nga xamante ni moom la dëdmal muy présidentielle bi waaye bu loolu yëpp jàllee dañuy dikkaat ci éternelle question yi nga xamante ni moom la ñëpp bëgg a xam mm-hmm. alors Karim ndax campagne à distance la nar a ndax université bi sax fi mu ne ni yi à sance cours en ligne am na mhm. <laughs> te nit ñee ngi naa cours présentiel léegi nag ndax élection à distance wala élection en présentiel moom la laaj bi di mujj samp saalof loolay express bi alors sa ji yàgg nga ak moom bëri na loo xam ci moom ndax lii mu amal ci campagne digitale bi ban njàngat lañ ci mën a def waaye tamit nag la ñëpp di bëgg a xam rek Karim Meïssa Wade quand est que tu vas revenir au bercail Mm-hmm. moom na ñuy xaar le retour de Karim donc Saa Wolof moom xam nga xam naa dina ci xam lu bari ndax moom eh. daa mel ni eh. <laughs> xawoon na leen jege. non comme ñëpp laa mel rek xam naa daal <laughs> euh, démb ajouté ci benn kii bu muy def xam nga ni WhatsApp di def léegi nga mm-hmm. xam ne day nekk. Mm-hmm. kii xaw ma xaw ma ñu koy waxeeti daal. WhatsApp bi daal chaîne de WhatsApp channel. waaw channel waaw. loolu gis naa ko ci beneen bi mooy du mën a wax ci moom trop. du ci xóot parce que xam nga nit bu fekkee da nekk fenn ba jóge fa. Euh, bon Sénégal nag bu nee këtt na jol mu laaj ko. Mm-hmm. da ngay wax sa xalaat. bu baax a baax mais comme dañu jëm ci jogante. dama tànn moom lañ soxla ci sa xalaat bi te dama tànnaat dama tànn feneen beneen candidat man dama am candidat contre moom. contre xam nga dañ ne même club bu football yi sax. Mm-hmm. tubaab yi li ñuy doy doy waar doy waar am na ci bi yooyu. su ne da ngaa fii at mooma mhm. bu ñuy dajee du doo doo doo nekk partant doo fubal moo tax damay ñaan moom ci Karim moom nañ mu may rek mhm. li ma ci xam lu mhm. positif ak lu négatif yëpp ma garder ko pour man bañ bañ waaw mais ci ab candidat lu mel ni campagne digitale même bu dul Karim bu ab candidat waree dem ci jogante lu du lu mel ni présidentielle nu gis mu ñogal li nga xamante ne moo jëm ci wàllu xarala yi ko wër ci wàllu communication tey ban jàngat lañ ci mën a def ci homme politique gu def ni nu mel bon dama koy wax ci li wax naan jote day jiitu joote jote mhm. day jiitu joote maanaam maanaam bu jotoon nit ñi laata parce que dafa am lu fi dox lu bari nit ñi ñoo ko jot mais moom mhm. ba léegi jotagul nit ñi parce que ay nit guddil nañ ko bëccëgal nañ ko komba après mu dem mhm. bu ñu demee ba nëg ni wax dëgg yàlla gisuñu parfois nag moom intervenir par tweet wala lettre wala dara dénoncer yenn yi mm-hmm. wala nangam mais pour mm-hmm. man mm-hmm. defoon lu lu mu néew néew def benn vidéo wax ak sénégalais yi wala wax ak militant bi parce que dana ñëw dana ñëw man mi ma bokkoon ci ñi daan wax dana ñëw dana ñëw ba ñenn ñi mujj xaddi leneen la léegi nag bu ñu xëyee gisi image image yi moom yànj na xam naa ne doon na yomba jàppale lool bu jàppale woon boppam trop parce que mbir mi daf xam naa daal wax dëgg yàlla am xoolu sénégalais yu bëri ñu ma xamoon ñu baree baree bëri ñoo xam ne c'est des karimistes y compris man rek xam man bokk ma ci dem dugg ci parti wala nangam ak nangam. Mm-hmm. mais bu fekkoon ne loolu daal ci la campagne bi di gën a yomb en tout cas yombalu ko ñu nekk ci terrain bi. Mm-hmm. bon suñu muyeelee mayo nag parce que gis naa seen dogu am na ci ñoo xam ne gëm-gëm dëgg mooy tax. Mm-hmm. nga des PDS ba nëgën yi maanaam sax xaw a mel ni ku topp nit. xam nga sama maas gi moom manqué wuñu gëm-gëm mais nit lañ mënta topp. man dafa am lu may toppee nit. Mhm. ak lu tax duma ma toppee nit. Mhm. Wade moom màggandoo nañ ak moom ba nëgë ni boo ko laalee laal ma mais ci Karim moom dama gis ne photo yi yànji na. ak mhm. yooyu yëpp mais yóbbante galgal nag. du ub làmb. ñu ngi koy xaar daal ba xam lan lay indi kenn mënagut a wax ne bu bu ñëwee. <laughs> ñu koy xaar dana mel nii wala dana mel naa xam nga Karim mënu ma ci xuus daal. loolu moo tax. waaw ñu lay jaajëfal donc comme li nga wax rek yaa euh, euh, da nga ciy dolli xam nga pour tëj express boobu uh-huh. euh, politique tamit uh-huh. arrive à un moment donné uh-huh. je pense que peut dinañ ma jéggal ci li ma bëgg waxee mooy faut être un peu sérieux aussi parce que jiite ab réew wala janoog saw askan ngir jox leen programme wax ak ñoom jaxasoo ak ñoom ñu xam yaay kan xam li nga nar ci ñoom ñu sentir sa présence c'est important et ça pour dire vrai ce n'est pas à deux mois de la présidentielle moom la koy def mhm. moi je pense que sur le plan de la stratégie politique am na loo xam ne mi ngi ciy góorgóorlu naam am na ay nitam mais nit ñi fi nekk di ko politique nekkul ñooñu lañ soxla mhm. problème bi mooy tey say militant yow mii nga xamante ni yaay seen leader nga nekk seeni i côté ima imagine tey saawlaf nekk per de famille njabootam di ko gis waxtu wu ne ñuy sentir seen papa seen wet mhm. mu leen di taxaw seen i naqar seen i bànneex seen papp di présent ak pa bi bëgg a nekk à distance chaque waxtu wu ne manqué wul devoir am. Mhm. donte mi ngi yónnee ndox te ci njaboot gaa ngi lekk ñu ngi naan lépp lu ñu soxla ñu ngi koy def mais l' absence maanaam tey jii nii du père. nga xool est ce que yónnee na dépense sax boo ko jëlee ci Karim waxuma <laughs> xaalis noonu quoi. waaw ah, waaw waay matière bari na ñu ñu dem exilé ah. def def effet. Mm-hmm. ku mel ni Khomeini. Khomeini ca Iran mais problème bi mooy di coordonné li muy coordonné mais Karim mm-hmm. Wade nekk na fële mais lu mu coordonné. dara xanaa jaarale ko ci ay benn ak ñaar te ñooñu sax man naa ne ñu bari ñu génn ci parti bi. te ñu fi teg tamit bëgg ñoo ñëw wax ak aussi tamit loolu mais koo ci laaj mu ne la dana ñëw te boobu ba tey euh, yàlla rek xam yàlla rek xam yàlla rek day mel ni ñu day mel ni ñu kilifa yi nekkoon PDS di génn loo ah. wax ku génn ne la Karim la ah. dafa mel ni te te ñooñu da koy xool xam ne waxuñ dëgg ko xam nga mm-hmm. dama naan réew mi moom Karim Wade Bouba a ci gën a son sonn. dëgg <laughs> maanaam ku nekk ci biir di kii waaye boo génnee wala nga bëgg a génn. Eh. ñoom ngay tudd. loolu moo ci nekk. mais ñooñu noonu doon tudd Karim Wade buñ génnee na nangam yow ngay wax ak ñoom naan leen du dëgg wala nangam ak nangam mais jiw jàppale wu la joxu la benn élément yow boo ko défendre. loolu day xaw doy waar quoi loolu moo nekkoon express des jour bi donc jaajafal suñu internautes yi ñoom nga xam ne saa su nekk dañuy ñëw di teew ci émission euh, Gëmmu Dóor dañu topp également di apporter seen euh, contribution donc di leen